Euh, Amadou Ba est choisi mu am de la contestation euh, Aly Ngouille moom le lendemain du choix le déposé démission am il est le patron incontesté dans le Jolof. Ah, euh, attendez attendez xanaa 17 17 17 maires yu signé. 19 maires mais oui mais ça c'est oui oui mais. Euh, non bëgguma tooñ maire yi ak base bi ma ne dissocier la la les maires la base. gis nañ ngeen jël fii Bamba ci local yi <coughs> ànd ak moom au législative ñu dóor leen. ngeen def la même chose. non euh, ici à à boo nee leader incontesté. day fekk ni au moins y a une unanimité le maire c'est mooy mooy paramètre. depuis 2012 non xam nga maire. le patron régional. waaw mais euh, dans ce département là loolu laa nag mais d'accord mais encore que. je veux pas de ce débat là parce que man passé naa loolu. waaw mais kon nangul li ma wax. non xam nga may mën a yow c'est-à-dire seen analyse dafay am ay erreur xam nga yaa ngi ne waaye bu ñu choisir Amadou Ba ba am na contestation wax ma ban coalition moo amul contestation. mais man damay lim pareegu ma non yeewi non non bul dem ci li ah, yeewi restel ci yéen seen problème ba pare. Ah, non dama bëgg damay lim pareegu ma ñun ñoo ci ñun ñoo ci gën a néew la ay problème alors Aly le patron dans le département de Linguère patron politique électorale Euh, Bernard Daram il est candidat euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne ancien premier ministre euh, ancien tête de tête de liste aux législatives de 2017 nekkoon même si ça n'a pas été officialisé genre numéro 2 nekk primature pendant cinq ans il a des hommes patron politique ils non moo nekkoon l'interlocuteur en tout cas il jouait le, le rôle d'interlocuteur politique aussi Maman. quand il était premier ministre Maman. voilà il a des hommes euh, un peu partout Mame Boye Diao maire de Kolda Berna li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy làngam heureusement que Abdoulaye Daouda Diallo le coordonnateur départemental de de de, de Podor est revenu à de à de à de meilleurs sentiments euh, trois euh, défections Euh, avec des gens yoo xam ne euh, politiquement c'est les gens qui qui comptent ça ne vous inquiète pas parce que da ngeen doon wax naan Mame Boye Diao dina ñëwaat euh, voilà gars yi dañuy sóob nii rek mais gars yi sóobuñu de. bon may mun na dama ne nga dama dama dama sa bi xamoon naa fi nga jëm. te dama ne ñun am nga ay coalition ñoo nekk ci réew mi coalition ñun ñoo ci gën a néew la ay problème coalition déglu rek. ban coalition moo fi am am problème ngeen am coalition yéew yi bi nga xam ni moo nekkoon suñu. suñu opposition ne tey ñaata candidat la ñu am ñëpp ay candidats la. ñëpp mais oui mais Yewwi c'est pas un bloc homogène. attendez déglu ma dama xam nga c'est une coalition politique électorale te ñoom dañoo waxoon présidentielle bu jotee ñëpp ay dem. analyse analyse dafay baax nga termes yi nekk benn Yewwi tey mu ngi am plus de cinquante cinq candidats. candidats yi deux yi ngay yor presque plus de la moitié. foofu la ñu jógee ñeneen ñi ay candidats yoo xam ne yéen ay bloc majorité présidentielle ñeneen ñi ñi ay candidats avec un seul ñi candidat promotion personnelle aussi daf ci am candidat publicité mais Yewwi presque cinquante candidats yi ngi foofu parti bu nekk dafa nekk candidat boppam te loolu yow loolu méttiwu la loolu gisoo ci inconvénient mais yow waxuñ ne bloc homogène lañ ñun xam nga euh, dans l'histoire nañ jàpp ne aussi c'est aussi une prouesse benn Bokk et est la seule coalition qui a résisté à toutes les épreuves durant 12 ans dans l'histoire du pays ça n'a jamais existé ba tey ba ci fu ñu nekk nii les les grands partis ñu nga xam ne ñoo téye ŋànk coalition bi kenn bàyyiwu ci à part le réew mi euh, donc dëgg ma na défection Alioune Sarr est candidat yeneen parti yeneen parti yi chaque jour nga gis défection yu fa jógee yu ñëw ci ñun yooyu ça ne vous intéresse pas kan mais ma ne combien de partis combien de jeunes étaient de l'ex-parti Pastef te tey di rejoindre la majorité. ban responsable dans l'ordre bugguma bugguma bugguma lim bu Pastef moo rejoindre seen bugguma lim mais bëri na. mais bëgguma lim. mooy xale mooy mooy responsable mbocco mbocco yooyu. non même l' essentiel qu' il soit je vous laisse avec la liberté de minimiser de Pastef ngeen def communication de Pastef euh, rejoint la majorité présidentielle. je vous laisse la liberté de minimiser la liberté à Pastef mu rejoindre les de la majorité présidentielle de minimiser des citoyens sénégalais. je ne minimise pas beneen bi xam nga nañ topp analyse bi rek ñooñu ñi ma am ci ñoom respect lañu muy Aly ñu mu nekk maire ma nekk maire euh, mu am aussi interconnexion même ci Jolof ak ñu waa Saalum euh, mu nekkoon ñu mbokk même gouvernement kon xam nga moom cër ak respect rek laa ko jox même si d'accord ma ak ñoom ñett ñëpp seen démarche. ndax lan parce que ñun ñëpp ñu tënku woon ci secrétariat national secrétariat national boobu secrétariat exécutif national boobu Mame Boye Diao rek moo ci bokkutoon. mais ñu nekkoon déglu ma rek. secrétariat national boobu Boun Abdallah Dionne mu ngi toog Aly Ngouille ngi co Aly Ngouille Ndiaye ngi toog ñépp ne manko ne président ko joxuñ ñu topp ko kenn amul benn voix bu am def défaillance kon bu ñu leen tànnoon ñoom du ñu nangu nit ñi contesté kon contesté te président sax dafa leen delloo woon mbir mi ne leen lé man d'accord naa vraiment kontaan naa ci confiance bi ngeen ma jox mais dama leen di delloo ñu def ay primaire ñu organiser collège bu nga xam ne ñu nekk membre secrétariat ñu nekk membre gouvernement ñu nekk membre assemblée ñu nekk membre au conseil ñu nekk membre conseil économique ak ñeneen ak ñeneen ñu def collège ñu seet ki leen gënal ma jiital ko ñëpp delloowaat ne ko déedéet kàddu gi yow lañ ko jox koo tànn ñu topp ci kon rafetlu ma tànnuñu leen rek ñu ber seen daara. mais ils ont leur mais ils destin politique. attendez c'est leur droit et c'est leur liberté. mais xam nga droit de ne pas être mais je suis d'accord mais départ da wax ni waaw man bu ñu ma tànnul duma ma d'accord loolu boo ko waxoon au départ mais si secrétaire national boobu kenn ñëpp ci nangu mais loolu yëpp tey passé nañ ko xam nga man jàpp naa ni il n'est pas encore trop tard pour que nous tous qu'on se rassemble encore gëm naa loolu parce que après l'épreuve des parrainages dana am ñu ci bëri ñu ci tirer leçon te am na suñu jaar-jaar te mënuñoo ñoom munu mënuñoo bu loo sénégalais yi que suñu bilan bi ñuy assumer ñoom bokkuñu ci mënuñu ko parce que Aly Ngouille mënu taxaw ci réew mi mënu taxaw ci réew mi ou bien ou même suma grande sœur Mimi Touré mënu taxaw ci réew mi. bëgg a ŋañ. bëgg a ŋañ bilan Macky Sall. il conteste de ce serait sere serait ce serait les Sénégalais am na am na ay ay ay ay parti bilan bi. waaw waaw dëgg ñuy contesté am na lu ñu am am na loo xam ñu ngi wax seen xalaat. xam nga loolu xam nga loolu man. man je suis fonctionnaire euh, euh, dañ ma dañ ma façonné dañ façonné à la à la sauce d'un fonctionnaire dama jàpp ni am na obligation obligation yooyu boo nekkee homme d'état ci loolu nga war a lalu pour yaakaar pour mën a diriger. ëllëg wax waxu obligation non obligation c'est-à-dire que na. président Macky Sall mii. la politique il a été premier ministre ministre de l'Assemblée président de l'Assemblée ah, nationale. ministre de l'intérieur. Ah, ba mu génnee ci euh, nguur Ablaye Wade. même àggali dafa dafa dafa doon sànni xeer. ah non mais jox na cër ak ormal Ablaye Wade. Ah. loolu loolu. mais ñeneen ne kat moo ko ci joxul cër. mais attendez yaa yaa ngi dégg tous les jours mais ñooñu bëgguma ci parce que loolu indiwu ma fii man sénégalais ñoo ma fi indi mais dama ni c' est pas trop tard. xanaa Aminata ku ñun euh, moo ne président il a besoin xam nga. <laughs> xam nga man loolu du ñàkk jox xam nga man man xam nga man. elle donne son avis wax dëgg yàlla man dama bëgg toujours responsabilité d' état boo ko assumé yenn auteurs yi am na yenn terme du génne sa gémmiñ damay ñaan yàlla ba ma yàlla dugal ci loolu.